il faut avoir des preuves xool leen bunt yi duñ ko dajee xool leen rek voilà serrure yi ko dajee numéro ba démb ci ngoon bi fi nekkee ci suñu conférence des élus ay policiers ñaari oto yi gis ak ñi wàcc ñoom dem sama ferme muy tool bi ma yor baaraam bi tëjee egsi booy ñi fa toogoon nekk ay vigile yor sécurité kër gi ñu génnee seen carte police woon leen ñu ànd ak gendarme mooy soit disant il y a quelques jours ñu ngi ci loxo diit mooy sénateur ñu am rek moom foofu booy ñu jël portable yëpp ñu nekkoon ci seen loxo ñu nangu ko dugg ci biir commune bi d'abord ba ci garab yi ci ginnaaw yëpp ñu pare dugg ci biir bâtiment bi ne yëpp am jaar bi qui n'était pas fermé ñu dégg yëg premier étage jël chambre bu gën a mag ñu daj ko ñoom policier yi beneen nekk ci topp daj ko ñu dem deuxième daj première chambre ñu daj beneen nekk ak moom génnee loxo yi ñëpp ci suuf lay visité xool yéeg wàcc au moins deux heures de temps ci kër jàmbur normalement perquisition du lu interdit c'est normal mais nag day fekk yow mii déjà seen il faut que yëg ko ñu ngi lay ñu ngi perquisitionné sa kër nga taxaw fekke ko lu di ko def nga fekke ko selon mon autorité ñu def ba ji ci son secteur je crois bien loolu la duba wax ci biir réew Samba Ngom est un Sénégalais nul n'est au-dessus de la loi bu ñu appliqué yoon ci sama gox dama koy nangu mais ñi nga xam ne ne def ko fenn waruñu ko def dama koy dénoncé ci kanam bopp ñoo ngi te luñ ci bëgg rek bëgg naa ci décorer wax ci man lan moo may wax bi bi ñu demee ci kër gi su ma ko waxoon opinion bi ci biir tool bi bi ñuy dugg yëg ma ko fekkewu ma ko lan moo may wax ne dañ fay dugal àgg boo xam ne non autorité ëllëg dinaa lii fànn wax mu fi denc àll bi kilifa ñëpp doy ko waral police police nationale la gendarmerie nationale la armée nationale la loolu Sénégal yi ko bokk kenn moomu am naa yaakaar man par rapport le général Jean-Baptiste qui est le ministre de l'intérieur am naa yaakaar ndax formation gendarmerie il a occupé des hauts responsabilités dans ce pays. gendarme soo bëri dugg di assurer ordre public bi su demee ba nekk au commandement de la gendarmerie ñëw na ci situation ci jàng école universitaire il a été au commandement de la gendarmerie du gàcce woon état xam nga muy doxalin réew yaakaar naa ne yëg man ci sama yaakaar kon bu ko yëgee rek bett na lool ndax je crois bien c'est un vrai républicain Jean-Baptiste Ndimaka loolu c'est important que askan bi xam ko lii xew démb laa la wax dugg kër jàmbur waxoo ko yëgul bindul nangu ay portable xale mën naa am sax bi ma demee foofu yëngu parce que man bi ma paree fii dem naa foofu yëngu ci guddi bi ma demee yëngu ci guddi mbir mi mooy suñu kanam gis naa pare naa nag jox ko un huissier suba incha allah mu def li mu ci war a def moom huissier bi. déposé ko sa plainte sama plainte ci Augustin Faye au nouvel procureur nouvellement installé donc damay porté plainte je crois bien la police du police Pastef du police APR du police PDS c'est la police nationale c'est la gendarmerie nationale c'est l'armée nationale. Quand on parle de quelque chose de national, ça appartient au pays. te am naa yaakaar ne du leneen mu ngi am day def kër jàmm nee naa ci biir kër du lu interdit mais dafa am li ci yoon wax yoon dafa am lu ci tëral wax am day am mandat boo xam ne jiit bi moo ko defal wala ñu topp la dara te tamit dafa war a yëg buy am bu ñu dugg kër dafa war a signé ngeen ànd lépp lu ñuy gis ngeen ko fekk c'est pas le cas hier loolu nag nekk lu doy waar loo ne yaakaaru naa yaakaaru naa ci sama xalaat acte yii la ñuy a boo continué nag ñii faru tey en commençant par Ousmane Sonko moom lay njëkkee moom lay campagne yaakaar naa moom bu amee doole ci pouvoir wala fat ci réew li ñu daan doxee di wax di waxaat di sotti sotaan am naa yaakaar ne bu foloo yor pouvoir Sénégal dina ne cocc donc ñun lépp lu ñu defoon baaxul comme lépp li nguur bi fi baax yi defoon baaxul moom du fi installé ay situation politique di ko xeexee man fàttaloon d'accord naa ànd naa ci réduction des comptes ku ñu dégg alal réew mi nga ñëw rendre compte réew mi alal la jox ko foo ko jaar te bàyyi kër gi tàmbale ko ci ñoom te nga ne wutu ko si du yem ci ñoom mais li ma jaaxal li ma d'accord ci ñoo xam ne wala mu nekk reddition des comptes ñu koy transformer à des règlements de rafet ñu mën ko transformer ak ay règlement de compte loolu am naa ci yaakaar te ci li ma yaakaar ku réew mi toll tey ñuy xool Sénégal ci wàllu démocratie dafa am lu ñu war a doxalee réew lu dul activité politique wala situation politique ñu ko instrumenter des gens qui doivent avoir des comportements républicains mooy la police la gendarmerie y compris ak la loi loolu dafa am solo ci biir réew reddition des comptes nag man mënu ko mu ma ci ma d'accord mais quand il parle de reddition des comptes ana fan nga bokk ak reddition des comptes j'ai pas peur man sori naa ko bu ñu xam fi ma juddoo li ngi jëloon daanaka ko poñ. Thank you. na askan bi xam fi ko jaarale te man léegi tuur ba maa ngi sax jënd ku baax wala nga dégg mais nag dégg nga dara dawal moom J'ai trois mandats. À ma qualité de député, Macky Sall faru na 2012 bu mu jógee fii ñoom ñi tey yor nguur gi yor état nañu dem vérifier assemblée nationale ban député bi nekk foofu. si les cent soixante cinq koo xam ne salaire am kenn du ko yéene ci biir kontaan bu mu moom am chaque mois chaque mois chaque weer bu jiyee fee les deux millions et quelques yi ñuy fay député mosuma dem signé na kuy ni dama yor nit ñi bi fii Coumba Amadou dem nekkee député ak naa ma ko seet woon ñoom ñooy dem jëli salaire yi ñu jox ko Aliou Ba am na ba doxalee ko noonu mais musuma xaalisu état ñu viré ko ci sama compte musuma. député c'est mon droit j'ai été élu pour le président de la République c'est une élection c'est mon droit buñ ma doon fay weer mën nañ dugal sama biir compte ndax man maa En tant que regardez-moi à ma qualité de maire pour des années. Population, ils nous me élire. Ils l'ont caractérisé. Et aujourd'hui, ils sont les gars. Le reste du vent. Kon nag lii bëggoon naa alerter adduna bi yëpp ce qui s'est passé hier hier mooy dem kër jàmbur ak di ma leen jii bi ñu ma nekkee Fouta le journal Témoin bind boole ci ñi nga xam ne ñu naan formation interdit de sortie du territoire sénégalais loolu moom man du ma bàyyi loolu jëju ma tukki sax ndax deux semaines su ma waroon tukki suba damay jéggi sama bii avec génnee li nga xam ne xëy na même bu ñu koy politisé ma tegal leen ko xam loo xam ne droit bi ma may mu war a mën a tukki te jamono ju toll nii mënu maa tere tukki bu dee yoon la ñu wax nag ci wàllu droit ak loi ndax assemblée nationale est déçue exécutive ci wàllu. a été dissoudre nañ ko mais assemblée nationale bu fekkee ne dissoudre nañ ko